l'islam du soppeeku muk mukk waye fumu tollu toll mën a jamono mu melni ki di professeur Sankharé loolu ka umpule wala mu comprendre li di sénégalais yi Sénégal dafa nek rew bi nga 95% de musulmans te fo yaqé diiné gi wala alcorane bi ñuy juk di ci réagir mën nañ leen a waye waaye tarixa yi mom ko ci wax bo sàgganul sa bakkan du mu melni nak bu ñuy xol tay yi wala xasaay ji lañu gëna faratal ndax kaddu yi ki di professeur sankare yëkëti wala dingat gumu dingat alcorane karim bi bu ron ci bindum mam El wala mam borom borom Touba wala sax maam Baye Laay ba ci maam Baye Ñas amaana Sénégal njaay sax doon na fi xat mu joon nag askan wi comprendre ni tariixa naam baax na waaye nag dafa am lu ko jiitu muy li nga xamante ni ñun ñëpp moom la ñu bokk gëm ko te woolu ko muy ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu nag dañoo war a taxaw dëggal ko suñu bopp bañ yenn ci ay xeetu nit yi jug taxaw ngir rek bëgg a salfaañe suñu diine bëgg a jël alxuraanul karim bi ne dañ ko war a méngaleeg jamono te coran bi ku ko jàng maîtriser ko dëgg di nga xam ni lépp luy xew jamono tey alxuraan wax na ko démb tey doo ko dikk Sénégal nag moom dafa nekk réew bi nga xamante ni julli bi rek moo fa du diine gi du l'islam bi ndax julli naam baax na lu ko jitu mooy gëm maanaam iman te nit ki nag loo gëm bëgg ko fonk ko doo nangu ku ko ñëw di ko yàq wala kuy ñëw di teg loo xamante ni teguwul mujjoon nak kilifa diine yi jug ardu si lii te bàyyi mbiru àdduna te xam yoonu dëgg bi mooy siraatal mustaqim la preuve berki démboo njaay liste non paritaire bi xew ci Touba berki démb bari na ay kilifa diine yu ci àddu mu mel ni nag tarixa moom ci Sénégal kenn du ko laal kenn du ko jege waaye alxuraanu yàlla bi wala diine suñu borom bi ite leen ci

histoire jàng arab taxul nga maîtriser coran bi tax loo ci wax da ko war a xam xeetu ñi di ñoo nar a yàq Sénégal salfaañee diine gi ak sax ñeneen ñu may bañ a tudd di woowee seen bopp ay philosophe fekk nag philodophe la ñu gën a jege gaañi maa ngok